ñu fàttali rek ni tey jii ñu ngi teewoon fii tey ci Tivaouane fii ci esplanade de mosquées ngir amal fii ndaje bu am solo bi pour waajal xew-xew bu mag boo xam ni moom la ñuy wax Achoura te mu bokk ci bés yu mag yi nga xam ni la bokk na ci calendrier yu événement yi nga xam ni moom la xadara Seydi Aj Malick Sy di amal at mu nekk muy xew-xew bu mag nag ndaxte at mu ne dinañ nemmeeku ni mbooloo dana jóge fu nekk maanaam muy ñu bokk ci daayira muxtafina nga xam ni seen président national mu ngi ni toog muy Serigne Mouhamadou Moustapha si ibnu Serigne Abdoul Aziz si Al Amin waaye dana am aussi ay taalibe ay pèlerin yu jóge fépp ci région Sénégal mais également ci réew yi nga xam ni sax ñëw wër Sénégal ngir ñëw teewee bés bi dinañu ñëw pour ziyaare waaye ñii dinañ ñëw tamit pour taataan ay xalaat taataan ay ndigal taataan ay eh, conseil yi nga xam ni dinañ ko jële ci ñi nga xam ni ñooy kilifa yi nekk fii ci bokk ci njabootu Seydi Hadj Malick waaye mën nañ wax ni xew-xew bi xew-xew bu ñëpp na ndax xew-xewu diine islaam la kon nag lii loolu moo waraloon tey ñu daje ak de d'organisation mais également ak ñi nga xam ne ñoo fi teewal municipalité bi muy commune Tivaouane teew également ak ñi nga xam ni ñooy chef de service yi nga xam ni ñoo nekk fii ci biir département bi et comme niñ ko baaxoo di def ak ndigal yi nga xam ni ñi nga xam ni mooy autorité gouvernementale yi moom lañ ñuy sant di ko jox ngir ñuy taxawal ci taxaw ci wetu këru diine yi ngir bu ñu amee xew-xew yu ni mel ñu ñëw def suñu kéemtalaayul kàttan ñëw jàppale leen ci organisation bi ba nga xam ne organisation bi dina doon organisation bu mucc ayib ci wàll woowu nag bi ñu waxtaanee ak comité d'organisation bi am na dogal yu bëri yoo xam ni tënk nañ ko fii mu jëm ci wàllu yokk kaaraange gi bi nga xam ni mooy am fii sax ci biir Tiwaawan waaye fu mbooloo di gën di daje dañuy fagandiku ngir gën a yokk kaaraange gi ngir Eh, pèlerin yi fii ñëw ñi fi ñëw di ziar ak ñëpp ñu bañ a am benn jafe-jafe ci wàllu woowu ci wàllu wér-gi-yaram gi tamit waxtaan nañu ak service yi lu dolloog deme ni service d'hygiène hôpital district sanitaire mais également ak sapeur pompier yi pour ñëw ñu jël matuwaay yi nga xam ni moo ci war ci wàllu garab ci wàllu secours ci wàllu ambulance ci wàllu pompe yi nga xam ne dañ koy def ci yenn béréb yi yooyu yëpp jàpp nañu ay bés yi nga xam ni dinañ ko fas def incha allah dinañu fexe ba dog-dogu courant yi mu bañ a am ñu def li ñuy wax mise hors délestage juróomi fan yoo xam ne daañu fexe ba courant bi du dagg ci biir Tivaouane waaye bu naroon dagg it am na groupe bi nga xam ne mu ngi fi nekk ñu wut ay câble lëkkale groupe bi ak euh, tente bi waaye tamit dinañ yokk éclairage bi fii yi nga xam ni moo wër esplanade de mosquées ak quartier bi yëpp ci biir Tivaouane changer ampoule yi nga xam ni moo lakk ba. dog-dogu courant ñaanuñu ko yàlla mais même bu amoon nit groupe bi tamit dana mën a fonctionner pour ñëpp nekk ci eh, dëkk bi leer ba nga xam ne du am benn jafe-jafe ci organisation cérémonie jël nañu tamit ay dogal ci wàllu ndox bi ndax maire bi jël na engagement waaye SDE tamit jël nañu engagement pour indi ay sachet d'eau waaye pour def point do yokk pression bi ci wàllu ndox bi waaye itam xalaat nañu sax ni dañuy jël décision ni dinañ indi benn camion citerne bu jóge cees ngir ñëw fii ngir dooleel équipe yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu ndox mi muy yeneen ni secteurs yi tamit lu demee ni ko élevage lu demee ni que euh, police gendarmerie euh, sapeur pompier jël nañu ay dogal yoo xam ni euh, yaakaar nañu ni fii ba keroog ñuy amal xew-xew bi incha allah dinañ ci taxaw te buñ ci taxawee ñuy ñaan yàlla suñu borom defal nu ci ndam ci organisation bi jël nañu décision nag ni fii ba keroog ñuy amal xew-xew bi et ñun ak waa daayira bi waa commité comité organisation bi maire bi chef de service yi fas yéene nañu jokkoo fépp fu ñu gis jafe-jafe ñu ànd euh, liggéey ko di xàccandoo di dóorandoo ba nga xam ni daal jafe-jafe bu fi am dinañ ko mën a saafara su di ñaan yàlla suñu borom defal nu ci ndam et di sàkkuwaat tamit ci sëriñ bi mu defal ñu ci ñaan e ba suñu borom may ñu vraiment et deux mille 2016 bi tombeek cent trent 1437 de l'hégire incha allah mu gën a rafet gën a baax gën a jëm ca kaw nga xam ni édition yi fi amoon yëpp naam ay émission yoo xam ne ni mu organisé woon yëpp rafetlu nañ ko waaye bii ñaan nañu yàlla suñu borom mu defal na ko muy édition bi nga xam ni dafa na gën a jëm kanam et ci wàll woowu nag ñu sàkkuwaat ci ñaanu sëriñ bi waaye di ñaaxaat nag tamit ñi nga xam ne ñoo ko seex muy chef de service comité d'organisation mairie décision yi nga xam ne jël nañ fi ñun ñëpp ñu mànko fexe ba ñu doxale ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ngir suñu borom defal na ci ndam te ñu am ci tamit ngërëmam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu